أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonentam bu tedd bi Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñëwaat a yéen ci darsu addis bi tey nag ñuy jàngale ab bunt bu nga xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeral li nga xamante ni moo di njàpp njàpp nag nekk lu nga xamante ni fala budd doomu aadama bi def ko avant mooy julli moom julli moom nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne kóllëre gi nga xamante ni moo dox sama diggante man ak yéen moo julli képp ku nga xamante ni bàyyi nga julli rek yow jàppal na ab nga kon mbir mu foor moom nga xamante ni képp ku nga xam ni bàyyi nga ko yow xéeféer nga boo demee ba koy def nag sarta yiñ wax ne mooy daj mu wér war ngi ci góorgóorlu ba daldi am sarta yooyu bokk na ci sart bi ci gën am doole muy njàpp naka lañ koy defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan koy jàngal mu ne wa qaala abu abdallah wa bayyana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam anna fardal wudui maratan maratan wa tawadda aydan maratayni wa salaas wa yasid ala salaas wa kariha ahlul xilmi al ishraaf fihi wa an yu jaawisu fexlu nabi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> nee na jëlee nañ ci abdullah mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral lan lañu li nga xamante ni moo di farataay njàpp yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jàpp na li nga xamante ni moo di benn benn kasaalika jàpp na li nga xamante ni moo di ñaar ñaar kasaalika jàpp na li nga xamante ni moo di ñett ñett gannaaw bi nga xamante ni jàpp na ne ñett ñett nag dëgg-dëgg dolliwu sa ñetteel boobu ba ni muy génn li nga xamante ni moo di àdduna te sax boroom xam yi sax dañoo gis ne yàq baaxut dem raxas ba quatre fois loolu day nekk li nga xamante ni moo di yàq kon daal li nga xamante ni moom lañ war a def mooy buñ romb li nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy def. waaye ki nga xamante ni da doon jàpp mu raxas benn benn bi tooyut mu ne benn mooy farata kon jarul def yeneen ni déedéet waaye bu ñu bu raxasee benn benn bu tooyut mu raxasaat ñaareel bi ñaareel bi tooy kon ñaareel boobu moo nekk farata waaye bu njëkk bi moom nekkul farata bu raxasee ñaar yëpp mu tooy tooyut bu ñetteel ba koy ñëwaat boobu mooy nekk farata bu ñetteel ba nag bu tooyut loolu ak càggante la waaye dëgg-dëgg ab loxob ndox ku ko jël daal di koy sotti si sag euh, cër yi nga xamante ni moom lañ war a laal ndox pour mu jàpp jàpp naa ne benn bi war na kay mën a tooy bu ko benn bi tooyut ñaari war na koy mën a tooy bu ko ñaari tooyut ñett war na koy mën a tooy kon am na nu muy bëree ba ëpp yàq la waaye daal jàppal ne benn bi raxas benn bi moom mooy farata raxas ñaareel bi kooku ab euh, ngëneel la rek raxas ñetteel bi tamit ka saalika ngëneel la waaye bu mënee tooy moo gën bu ko benn bi tooyut beneen bay ñëw da ko tooyal boobu mooy li nga xamante ni moo farat kon jàppoo ngi noonu lu am solo la lu nga xamante ni si sariya nit mënu toog rek amu benn ngànta toog rek julli te jàppoo kooku sax boroom xam-xam yi dañuy wax ne képp koo ko def rek yéeféer nga ñu ngi neen yàlla dégg ak topp bi jaay nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taalaahu wa barakaatu.